Mbacke baa sax bis bi li ma ci yëg lépp mooy xol bu sedd ak mbégte ak dundaat yàlla sunu borom ndax sunu famille bi dafa meloon ni am na lu ci dugg lu koy rax kon sëñ Mountakha Bassir bu woote waatee bis bi dafa bëgg ñun ñëpp ñu dundaat delluwaat ci yàlla sama borom ndax moo fi ne fii kan moo fi ne yàlla yonante bi sëñ Bamba maam Cheikh Fall abori jaalu laay ñun dañuy sant Serigne Touba ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñuy sant Serigne Touba di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér yàlla na nu yàgg gunge nee na jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. taalibe Cheikh laa waaye tubaar fakal la bés bi dafa neex bésu jullit la ñu woote te man ko sëñ Muntaxa laa bee dafa fekkoon ma feebar waaye sama xol sedd na guy jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñun ñëpp benn lañ. mooy lépp mooy lii suñ borom mi nga xam ni moo ko may lim ko may suñ borom du may di nangu te da koo liggéey ba yàlla defal ko kon yàlla yàlla yàlla defal sëñ bu taxaw mu yàgg fi te wér te yéen ñi nga xam ne yéen a taxawu bis bi suñ borom defal leen tawfeex ak tayseer suñu borom defal taalibe yëpp jàmm ak xéwal yi joxe addiye te Touba ca kanam nag seen xel dañ cee jàpp ñu gën cee góorgóorlu ci barke Sëñ Touba sant di sant Sëñ Touba bu wér a wér a wér ñi sant Sëñ Touba ndax moom li nga yàlla may da ngaa mayul kenn Sëñ Touba nee na kafaaniya fegal na ma albaaxi aji des ji almamaata dee sarmada ba faaw loolu Sëñ Touba rek la nga yàlla may mayu ko keneen nag xoolal la ci Adama ba ci ki mujj ki yàlla di sëñ Tuubaa li nga yàlla may mayu ko keneen. ñoo leen di siyaar di am mbégte tey ci jotaay bi sëñ bi Muntaxa moom sëñ Basiru ñëw gane si ko waa Dakar muy sagum ñëpp di ci jaajëfal mbokki taal bi yëpp ñuy ñëpp jóge ñëw wuy si ko di ñaanal sëñ taxa lim yéene liggéey sëñ Tuubaa lépp mu defe ko li ko te ànd ko mbokki jullit te mbokki taal bi yëpp.